naan xaadim busa du ma ne imaam xaadim busa du ma wax sax imaam parce que bu tóor naan la ma lay wax xaadim imaam parce que imaam dafa dafa dafa dafa cher nañu xoolaat baat bi ñu tuddee nit ñi imaam dafa cher imaam dafa riis su ko jox la ñu wax imaam li ma gën a metti fi mu doon mooy ndàkk ndàkk yi nga xam ne dugg nañ ci yoon dugg nañ ci ci géew politique di def di jaay seen ngor ngir lan xaalis Ousmane Goko mooy Ousmane Sonko Ousmane Goko tuuma ju rëy tuuma joo xam ne kuñ ko mos tuumal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 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وعلى نبيه سفيه العالم والصلاة والسلام على رسول الله بكي ما يندنيو دلن زيارة دلن نعا جمو تلقو ساكتين دلن بالو حق تلقو ساكتين دلن سابر مبان حق يدخ سنتك أبنون سوكا دفع بكي mbokk yi su ngeen xam ne mbir mu am importance moo tax toog fii jàkkaaroog yéen muy loo xam ne bëgg naa yéen ñëpp ngeen bay ko xel muy émission diine ak jamono émission diine ak jamono nag ki koy ànd ak yéen bi seen mbokk Serigne Fallou Gaye di émission bu am solo di taw fii ci deux deux cent vingt et di site boo xam ne itam site bu am solo la ku ko bëgg a topp rek nga abonné wu ci incha allah ñu ngi topp. mission boo xam ne day laal fépp day laal ci diine day laal ci jamono day laal ci tolluwaayu réew mi maanaam fépp daal day fépp lay laal ak fépp jamono toll da koy laal ki koy ànd ak ni mu ko waxee léegi mooy seen mbokk Sëriñ Fallou Gueye mbokk yi ginaaw loolu réew mi ku ne xam na ni mel jamono bi réew mi yàpp na réew mi toll na ci tolluwaay boo xam ne wax dëgg yàlla ñaaw na lool mbokk yi ñi nga xamoon ñooy nit ju sell Di joo yo xamne senum ñaan dafa nangu ku ñu ñaanal yalla nangu dekk fi senegal Sénégal juddoo fi daan fi yewoo ku ci mel mam Borom Touba ku ci mel mam maam malik Si ku ci mel mam bagnes dekk ci benn réew di fi juddoo fi réew moom di Sénégal tey Sénégal googu tey jëm ci yaq nak mbokk yi ñu ngi koy sétan te ñu ngi sétan loo xamne ah Senegal day la am ci yeneen réew ya ba yalla dafa indi ay ma de terre ay kër yu daanu ay suuf yu mabb ni fi am isan yi yoo ngi seen ak li tax yàlla du ñu yërëm bu la loolu amu fi mooy mag ñu baax ñu fi tëdd mooy ku mel ne maam Borom tuba ku mel ne maam Alaaji Maalik Si war nañoo xoolaat suñu bopp léegi réew mi fi mu toll wax dëgg yàlla ñaaw na lool ñaaw na lool politique bi buñ ci duggee moo gën a yàq réew mi léegi mbokk yi politique ni ñu koy defee nii ñaaw na lool lii di politique politique ni ko yëngatu bi sànq daan defee bokk tam nii politique nag. ñu jàpp ne léegi la xew politique yoon sansalam moo ko njëkk a def ndax bi ko yàlla yónnee mu ñëw jamono indi loo xam ne suñu borom moo ko jox muy message de Dieu aussi na di woote loo xam ne yàlla moo ko digal la waaye yoon sansalam nag ñu naan politique bokkut ak ñu pol ñu politique jamono bi kooku ci yërmande ci di koy rafet ci mbaax ci xel mu rafet ci xel mu sell nga xam ne suñu borom moo fay tàgg wax ko yow mii day ku bari xam-xam nga كتارم ودفن كو كو كو كو جرفن لير وإنك على خلق عظيم كو كو داي تي خل مرت لون بولتيكي تي الله وخنا نورايك هون دخل خادي كان لكم في رسول الله إسوة حسنة مموش نورايك هاي كون كيف كو فلتك وانا غا رويكي بينو سان سلام دمان بيانك أمن إكزامبل رويا خمنا ورنا نيو خلق نيوم كي جيت رويا دمان بي نيو مكسال لب لا يدف ورنا تي خلق ليغا خا نيم لاي ديف نдах كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته نيت كونه سامغا تاني كون الله جل خام سوم الله نك نون سامي سان ديبو الله جل خام دي سوم الله لاج سنغال بو نيك نك نغا دون سامي نك نغا دون يليفه تا بولا سوم بروم لاجي دا نيت تيو لول نдах ني غاي جيري فين توني نياو نا تروب لول كوم فول تي كاو ياغي واخ سوف نغي واخ تادي دا مانا بي نك ni am nañ ay wajur ni am nañ ay bay nga sànq leen te ko fenn lol day lu ñaaw la wax deug yalla lu ne nak bokay def war nga cee xol sa dom yalla bu la jox dom lu li lu moy nga am xol bu yermande ba li nga nar mu mu def sa dom bu bañ kat doomu jàmbur waaye nag bur naa ne loolu defoo nga doomu jàmbur tu man ko ni usman Sonko tu man nga tu tuuma di reuy tu joo jo xamne kuñ ko ma su tuumal tey di sa tur yegg na fenn fi nga tuumal ko. loolu doyu la nga jàpp ko di ko sonal di ko bunn xatal lu ne nga teg ko ko te mu dëkk ci réew mi juddoo ci réew mi di sénégalais comme yow nga koy def lu nekk loolu ñaaw na trop te wax dëgg yàlla day Seydina Omar ibnul Xataab boo xoolee ci na naan doxalee bi fi Aboubacar jógee doxal mu a la te kooku day exemple la boo xoolan ci nga xool histoire am rek da nga war a mën a jiite jiite bu normal jamono ji nag réew mi yàqu na li ma gën a metti fi mu toll nii mooy mbàkke mbàkke yi nga xam ne dugg nañ ci yoon bi dugg nañ ci ci géopolitique bi di def day sen ngor ngir lan xaalis dara jëru ko yeen day Sëñ Tuubaa li ngeen bayil mo moo ëpp fuuf politique mo ëpp fuuf xaalis ahmadou ray dafa ñew fonde ci jamono état islamique bo xamne ne amul état islamique bu fete kaw ngeen nak fa ñuk waron dem ci daare ya, waron dem ci tool ya waroon a bind nit ñi waye ngeen tok ci tale lu ñu ko wax dama bi nak bu yàggut rek gis na bi ku nan khadim Buso du ma ne imaam Xaadim du wax sax imaam parce que gitu naa la ma lay wax kàddu gi am parce que imam dafa dafa dafa dafa cher nañu xoolaat baat bi tuddee nit ñi imam dafa cher imam dafa riche ku ko jëkk la ñu wax imam man dafa la woowee imam mukk xaadim bu laa la woowee boo gisee nag ma am ci benn respect bi mooy sa tur yi ñu tuddee mooy xaadim wax dama respecté Ahmadou Bamba waaye rey maa ngi lay dénk sa tànk fi ko teg teg ko fi ya, nga teg sa tànk teg ko te ànd ngaa koo xam ne wallaahi jot fa àndal ànd ngaa koo day wor bu la jaralee nag nga bëgg bàyyi ñi nga xam ne ñooy say ñooy say nawle bëgg dem fekk si leen yaa ngi ci géej goo xam ne xamoo fu mu fan la fan yaa ngi ci gaal goo xam ne fu la maa ngi lay dénk nag lenn Axmadu mii sama mbay mos a bëgg ci li nekk te bu dee seetaan jamono tey wallaahi dana la jëpp lool sa wax yi ngay wax kaddu yi ngay wax ci télé bi ñaaw na trop wala xoolaatal fi nga def sa tànk Axmadu mooy sa maam bul fàtte loolu te sa maam def na fi loo xam ne kenn du ko fàtte ci àdduna ni yesu foofu jamono bii ni ma ko waxee ci léegi ci commencement bi réew mi yàqu na ndàkke ndàkke di ngeen ci géej bi te yéen li ma gën a métti mooy am ngeen exemplaire muy Cheikh Mor Muntaxa di koo xam ne jàmbaar la koo xam ne royteef la koo xam ne ku xool ci moom wallahi war ngaa mën a xam fi nga stan waroo mën a juum mu nekk seen kanam ngeen mën ne amu leen exemplaire lu la neex ngeen def leen lii du seen cër génn leen ci lii du seen cër génn leen ci yak yak do ni ci lañu yakare ngeen ngeen ngeen résoudre ko wa bu ngeen mëne ne ñu yàqu kon wax dëgg yalla rew mi xamuñ xamuñ fu mu jëm nañu xoolaat jikko yi nañu defaraat jikko yi nañu soppiwaat toogaay yi ben nit wurul mëna nek trim bi def lu ko neex kon ko and ak mom bu yàggee ñëpp loy naa feq maa ngi ñaan ñu defaraat jikko yi ku mëna wax na wax ndax rew mi fi toll wax dëgg yalla yéeme na trop ku mëna wax na wax nañu defaraat jikko yi defaraat toogaay yi xamne aduna du keur wallahi du keur li ni indi Senghor jaaroon na fi tey mu ci bir souf abou Diouf jaaroon nafi tay bayina abla war Abdoulaye nafi tay bayina tay ya fi nek bo xole sa ginnaaw ña fi jaaroon ñëpp bayina nga xamne ne nguur ken ken kenn du ko yàlla yàlla rek mo yor nguur qul allah malikal mulk tuuti mulka man tashaa Ousmane Sonko bi nga def xam nguur bo yàlla tudde ci nga dina ko am bo xole ci sar musa ak Firawna bi nga xamne ne nguur yàlla ko yor ndax Moussa kat Firawna moo ko yar ci biir këram mu dem liir bi koy xip na yar ko ba mu màgg bi mu màggee Moussa mi jar moo ko alag te Moussa moo nekk yoon ci kanamam kon Ousmane Sonko mi nga bëgg xañ ko bu ko yàlla tuddee mënoo wax mënoo koo sànq mënoo koo tëj ko loo ko mën a taxaw dina ko doon incha allah bu ci ñaaw xoolal sa toogaay xoolal sa entourage xoolal ñu la wër te nga xool fi nga tànk mbokk yi loolu la ñu amoon yéene jàllale ko ak yéen li ñu leen di mooy émission bi mooy diine ak jamono diine ak jamono nag day wax ci diine day wax ci jamono ànd ak yéen ci actualité yi xew ci di koy yàqu yi lépp dañ ci ànd ak yéen incha allah yéen bàyyi loo xel ngeen abonné wu ci site bi ba 321 ngir ngeen mën a suivre émission émission bi ki koy ànd ak yéen di seen mbokk Cheikhoune Fadal Gueye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu